mbokk yi nuyu naa leen yéen ñëpp ci seen tur ak seen sant di rafetlu bu baax a baax teewaay bi di delluwaat di féliciter groupe Walfadjri ci taxawaayam ci liggéeyam bu rafet bi muy def te ñu koy gis ci rajo bi ñu koy gis ci télé bi ñu koy gis itam ci Walf Quotidien ak ci yeneen support yëpp di nuyu El Hadj euh, Cheikh euh, Niass ak euh, mbooleem ñi nga xam ne ñoom la àndal ci liggéey bi ak mbooloo mi nga xam ne ñoo nekk fii ci table bi ak ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ci salle bi bi ma ustaas Assane jokkoowee ak man ne ma ndax yëg nga programme bi tey ak ndax di nga ñëw dama ko ne ah bu fekkee maa ngi noyyi ba léegi te président Macky Sall dugaluma kaso saay bu wal fajri xewlee ñëpp ñàkk donc incha allah naa ñëw wal fajri ndaxte wal fajri mooy askan wi yéen waa walfaj fajri dama bëgg ngeen xam ne askan wi kontaan na ci yéen askan wi rafetlu na seen liggéey askan wi sopp na leen askan wi bëgg na leen di leen di encourager ci tànk yi bi may ñëw fii maître Moussa Sarr di sama xarit bu baax di sama mag bu baax di avocat maître Moussa Sarr laa woo ma ne ko maître Moussa Sarr dama bëgg nga fàttali ma lan la ñuy toppee suñu mbokk Cheikh Bara njaay mu ne ma lenn de lañ koy toppee ma ne ko lu mu mu ne ñu ngi toppee Cheikh Bara Ndiaye actes et manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique. Actes et de nature à compromettre la sécurité publique. bu ma ko doon faram ci wolof ci tënk moo di ne Cheikh Bara liñ koy toppee mooy dafa def wala mëbët def loo xam ne day salfaañe mbaa faagaagal suñu kaaraange ñun set millions de citoyens sénégalais mbokk yi dama bëgg président Macky Sall mi nga xam ne moo tëj Cheikh Bara Ndiaye président Macky Sall ñun dofuñu jinne jàppuñu procureur bi nga xam ne moo lànk ne Cheikh Bara Ndiaye du génn ñun dofuñu jinne jàppuñu magistrat ñenn ci magistrat ñenn ci juge yi nga xam ne ñoom la président Macky Sall di manipuler ñun askan wi dofuñu jinne jàppuñu ñun leer nañu ne Cheikh Bara Ndiaye kenn toppewu ko ay jëfin yoo xam ne dafay faagaagal kaarange 17 millions de citoyens sénégalais ndaxte bu doon loolu lañ ko doon toppee kon ministre ak ñii di liggéey ak ministre yi nga xam ne ñoo sàcc xaalisu mbas mi depuis 2020 muy ñetti at kon ñu jàpp nañ leen yàgg na atte nañ leen yàgg na goxi nañ suñu alal yàgg na bu doon suñu kaaraange ak suñu sécurité publique ndaxte kat sécurité publique mu ngi tàmbalee ci xaalis bu ñu la dénk ñun 17 million de citoyens sénégalais pour nga dab suñu bànneex sécurité publique kaaraange mu ngi tàmbale ci nga saytu saytu win bu mucc ayib suñu xaalis sécurité publique mu ngi tàmbali ci ñu jox la suñu réew mille 2012 tey jii nii ngir askanu Sénégal lekk soble foog ñu dem yelwaani Maroc sécurité publique mu ngi tàmbali ci ñun réewum pepp dugub pepp mbokk pepp basi ñuy dem yelwaani ba Russie ba Ukraine pour am pepp pepp bu ñuy woowee blé sécurité publique foofu lay tàmbalee sécurité publique mu ngi tàmbalee wala insécurité publique mu ngi tàmbalee ci yow nga jël suñu géej suñuy suñuy yaboy suñuy sippax nga wanteer ko gaalu chinois gaalu union européenne gaalu russie ba suñu nappkat yi yow 2012 ñu jox la réew ak ñoo xam ne ñu ngi leen di woowee pêcheur maanaam napp nappkat nga wanteer suñu géej ba léegi ñu ngi leen di woowee transporteur suñu pécheur yi Macky Sall les a trans transformer en transporteur vers Barça ou Barsax sécurité publique mooy ngay luubal suñu alal tas yaakaar ba nit yi di jël gaal wala désert du Sahara ñu leen di tongali Tunisie mbaa Libye ñuy dee ci biir mer Méditerranée lii mooy insécurité publique bu fekkoon loolu moo taxoon jóg président Macky Sall ak procureur ak justice kon ministre yi nga xam ne ñooy luubal bés bu nekk di sàcc bés bu nekk suñu xaalis kon jàpp nañ leen balaa ñoo jàpp Cheikh Bara Ndiaye depuis le 4 juin 2023 kon Cheikh Bara Ndiaye kenn toppewu ko loolu li ñuy toppee Cheikh Bara Ndiaye foog ñu wax ko mooy Cheikh Bara Ndiaye dafa ñëw fekk askan wi fekk ñu ñun mu ne ñu xam leen ne lii ngeen jàpp du loolu lii am mooy Sénégal dañ koy noot alal bi li ci ëpp di dem bitim réew astuut bi fi des ñoom ñu koy sàcc ba mënuñu dab suñu bànneex ci wàllu njàng ci wàllu wér yaram ci wàllu kaaraange ci wàllu xëy ak ak ñoom seen Cheikh Bara li koy toppee mooy dafa niit xel yi Cheikh Bara li koy toppee mooy dafa def un travail de déconstruction moo tax am na sañ-sañ wax fii tey ne nu sommes fiers de nos doomu daara Nous sommes fiers de nos compatriotes doomu daara nous sommes fiers de Cheikh Bara Ndiaye nous sommes fiers de tous les Cheikh Bara Ndiaye oui nous sommes fiers de vous nos compatriotes doomu daara et nous sommes avec vous vous devez être des citoyens à part entière vous avez votre mot dans notre débat Cheikh Bara loolu la ñu kaa du leneen bi ma Macky Sall tëjee ñetti weer kaso camp pénal bii ginnaaw bi ñu demee xeex buntu palais présidentiel ndax dañoo yokk courant bi damaa toog ñetti weer yi mot ñu naan Sénégal am na premier cas mbasam agent pénitentiaire yi ñëw fekk ma ci fi ñu ma tëj ñu ne ma génnal ma ne leen génn ma man ñaanuma liberté ñu ne ma am nga liberté provisoire ma ne leen ñaanuma liberté ñu ne ma da ngay génn ma ne leen du génn ñu ne ma da ngay génn kon Cheikh Bara bu leen neexee ñu génnee ko ñu ne ma gii bu ñu sonnal da ngay génn man ne leen ñaanuma liberté provisoire te billaay wallaay ñaanuma woon liberté provisoire amul benn këyit bu ma signé buy wane ne ñaanoon naa liberté provisoire amul kenn ku ñëw ci man ne ma gii saa ñaa am nga signé këyit bi pour ñu mun déposer liberté provisoire ndax ku ñu mës a tëj xam nga ne balaa ngaa am liberté provisoire da ngay signé benn këyit sa avocat ñëw indil la ko kaso nga signé ko ak say baaraam nga dugal ko ci encre nga capp nga teg kayit boobu la ñuy yóbbu procureur xool juge bi xool ñu bàyyi la am déet man defuma woon loolu yëpp ñaanu ma woon dara ñu ne ma acca génnal waaye nag li ma génnee du woon man de ndaxte ñaanuma ma woon liberté provisoire li ma génnee mooy askan bi dafa def benn marche bu jóge VDN ñëw fii ci rond point bi jaar ci kanamu kaso camp bi ma nekkoon ñu naan déet bés boobu askan wi ne beneen yoon duñu ñu marche romb sitting la ñuy def ci buntu kaso bi président Macky tiit loolu moom a génnee na woon fa woon na woon fa woon ma leen di xamal ne jamono jii ñu nekk gën saa néew am na junni ak ñaar fukki détenu politique mille vingt ma ne mille vingt détenu politique ku ci nekk xam ku ci nekk xanaa am nga juróomi mbokk am nga juróomi xarit fukki nit bu ñu génnee ci détenu bu nekk ñaar fukki junni nit la dix mille personnes dix mille personnes Macky day wa day wéy ci libérer détenu politique yi wala mu abal ñu kon ça veut dire que ñun mbokk mi détenus yi am nañ si responsabilité nañu waxante dëgg de nañu waxante dëgg ñun dañoo mun muñ dañoo mun muñ ba di muñ suñuy musiba ba kañ mbokk yi nañu wax ci ñun waaw dama tàmm di joxoñ président Macky Sall ndaxte lu am moom la ginnaaw yàlla waaye tamit comme ni ma koy faral di waxee yenn saa yi nañu joxoñ suñu bopp mille détenus politiques ana seen yaay ana seen pàpp ana seen mag ana seen rakk ana seen mbokk ana seen dëkkandoo ana ñu ñu bokkal daayira ana ñu ñu bokkal église mbokk yi ñun la de te lii bu continuer jaam lañ ñuy def te ñun du duñu askanu jaam dama ne diine moo wax ne sa mbokk bu tooñee nga taxaw bu tooñulee nga taxaw buñ ko tooñee nga taxaw Cheikh Baara bu tooñoon ak lu ma leen bëgg bëgg bëgg bëgg ak li ma bëgg wal fajri fii laa ñëw ne leen Cheikh Baara moo tooñ Cheikh Baara tooñul dañ ko tooñ moo tax may ñaan ñu delloo Cheikh Baara Ndiaye pextewam maanaam saa liberté nañ ko delloo saa liberté nañ ko delloo pextem état de droit mooy d'abord état boo xam ne il est soumis au droit maanaam état de droit mooy état boo xam ne yow d'abord da ngay respecter droit Cheikh Bara deful dara dafay niit dafa nekk nit kat dafa nekk un déconstructeur muy def liggéey bu mucc ayib may interpeller les amis du Sénégal les amis du Sénégal lay interpeller ndaxte affaire bi tamit dafa am complicité internationale man je n'ai rien contre Alexei Navalny Alexei Navalny ngir ñiy tàmmul dégg tour boobu opposant russe la opposant Poutine la dégg ngeen barki Dembo Ndiaye justice daan ko 19 ans de prison fekk moom mu ngi ci kaso ngeen dégg Londres def communiqué ne Poutine lu muy def du dëgg du yoon France génnee communiqué ne lu muy def du dëgg du yoon États-Unis génnee communiqué ne lu ñuy def du dëgg du yoon Union européenne def communiqué ne li Poutine ak justice russe rusé di def du dëgg du yoon comment est-ce qu'on peut emprisonner arbitrairement le chef de l'opposition sénégalaise France ne pat États-Unis ne pat Union européenne ne pat xanaa kumba am ndey ak kumba amul ndey la naka la ñu mën a arrêté arbitrairement tëj arbitrairement Cheikh Bara Ndiaye ñoom Ami Dia ñoom Maimouna Dieye ñoom Fala Fleur ñoom Hannibal Djim ñoom Fadilou Keïta ak ñoom Sène ndaxte ñu ngi toll si junni ak ñaar fukki doom yi aadama ëpp na ko sax waaye foofu la suñu lim toll yow nga ne patt donc nous interpellons les amis du Sénégal xaaruñu leen nag pour def lu ñu war ndaxte xam nañ ne on ne libère pas un peuple un peuple se libère xaaruñu leen waaye bu suñu ay mbokk lañu suñu ay am di jàmm lañu te li ñuy wax ci Russie ak Poutine ak Alexei ni war nañ ko wax ndaxte kat il ne peut pas y avoir de république sénégalaise et de démocratie sénégalaise avec le chef de l'opposition en prison. Il ne peut pas y avoir de démocratie sénégalaise sans opposition libre. Et il ne peut pas y avoir d'opposition libre avec le chef de l'opposition sénégalaise arbitrairement emprisonné et 1020 détenus politiques arbitrairement emprisonnés, donc libérés, Cheikh Bara. fenn laay daanele suñu bàyyi Sidi Lamine Niass yàlla na ko yàlla yërëm xaree ko aljana bu fi nekkoon dinañu wax li ngeen di waxtaan yépp neex na waaye bu leen fàttee mukk il faut agir localement mais il faut penser globalement penser globalement mooy lan bàyyi xel ci li xew Niger li xew Niger li waa ji doon wax on croit mourir euh, pour la patrie alors qu'on meurt pour des industriels ñun nit yu ñuul am nañ sañ-sañ wax ne bépp soldat sénégalais ñaanuñu ko yàlla bu dee Niger bu fi kenn wax ne ils sont morts pour la patrie ou contre un coup d'État En réalité, ils sont morts pour l'uranium de la France au Niger. Ils sont morts pour maintenir le Niger dans le franc CFA. Ils sont morts pour maintenir le Niger dans les accords de partenariat économique et le néocolonialisme. gars yi réew bu nekk garde à vue ndaxte ñun dañoo nekk garde à vue franc CFA garde à vue la di jëfandikoo làkku nasaraan doxandem garde à vue la. fonds monétaire international ak banque mondiale di ñëw di la wax li nga war a def ci sa politique garde à vue la garde à vue néocolonial réew bu nekk garde à vue néocolonial bu amee ay Cheikh Bara Ndiaye ay Ousmane Sonko ak ñoom seen yuy nit xel yi naan réew mi dafa nekk ci garde à vue ñoom la ñuy jàpp def leen ci garde à vue ñoom la ñuy jàpp tëj leen c'est comme ça qu'il faut comprendre la chose réew bu nekk ci prison néocolonial ñi nga xam ne dañuy jéem a pinke askanu Sénégal ak askanu Afrique génne leen ci prison néocolonial boobu ñooñu la ñuy dugal ci prison lii moo tax Cheikh Bara Ndiaye nekk ci biir kaso lii moo tax Ousmane Sonko nekk ci biir kaso lii moo tax Hannibal Djim mi nga xam ne mu ngi hôpital principal ak Cheikh Bara Ndiaye nekk ci biir kaso libérez Cheikh Bara Ndiaye libérez les mille vingt détenus politiques Ousmane Sonko cinquième président ndaxte day bokk bu kenn xaddi Ousmane Sonko cinquième président ñun amuñu benn plan Ousmane Sonko cinquième président il faut libérer Cheikh Bara Ndiaye il faut libérer Cheikh Bara Ndiaye il faut libérer Cheikh Bara Ndiaye il faut libérer les 1020 détenus politiques je vous remercie